moom dof la. maa ngi yore ñetti oto de dof la dof koy du R plus 2 du R plus 11 moom dof la moom dof mooy tëdd ba guddi gént ne lii day am te des fois am des fois bañ am dof mën tawee si loolu gént ñëpp koy def. dof koy mën tawee si loolu moom dafa dof dof lu ba yàlla may ko xaalis dof dof lu ba génn ci mbàll bi wax tax dof yi parce que moom dof la bu dee dof la moom dof pire la dof dof mën tawee si loolu. taf kanam gi fu ne mu taf fa def ay rastaam rastaam bi fu ne mu jël ko fu ne wut na fa karaw wut na karaw chinois monté ci karawam karaw indien monté ko ci karawam loolu doo kon moom dof la dof mën tawee sol xaw moom amee fi moom karaw ba def njañ déedéet déedéet jël na karaw ku ne karaw ku tubaab karaw nit ku ñuul gisoo lépp ndurawul xoola karaw gi lépp ndurawul de di verte la yi jaune yi bleu yi mauve ko xam nga dof mën tawee sol jël ay karaw jàmm di ko takk ci karawam